رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu ñu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te mu sëgg ginnaaw loolu mbokki jullit yi tey ci monde islamique ajjuma yi gën a metti ci jullit yi tey ci ajjuma yooyu bii ci la bokk xam ngeen ne tey ci dëkk ba la ñuy wax Nouvelle-Zélande julli di dañoo xëy di julli ji juma ci ñaari mosquée ndeke am na ay nit yoo xam ne ñu ngi wax ne ñu ngi bokk ci yamin ñoo ñu naan ñoom ñooy wootewu ñoo bokk ci ndeyjoor te ñu naan ñoom ñoo bokk ci droite ñooñu nga xam ne bëgguñu gis jullit ndeke tëral nañ seeni fexe jël seeni kalashnikov bàyyi ba jumaa ji fees ba imaam bi taxaw di xutba waa ji daal di dugg genn wàllu jumaa ji mu rey ci fajar dañ doon wax quarante personnes ñoo dee léegi balaa mooy ñëw dernière information nee nañ mag nañ cinquante personnes te lu doy waar mooy waa ji bi muy def loolu def ko filmer en direct Facebook ne kaay leen ma wan leen nu ñuy reyee jullit yi moo tax instant bi may wax waa Facebook ñu ngi effacé vidéo yi parce que boobu ñu julli di gis ko information ci àdduna bi yëpp ñoo ngi teg seen tànk parce que bëgguñu xabaar bi tasaaroo ndax rey bu ñaaw bu mu leen rey ñaari mosquée daa rey ñi ba doyal génn dugg ci otoom dem beneen rey ana ñu doon wax ne ana Charlie keroog ba événement bu mel ni amee France am na ñu bari bari ci àdduna bi ñu dajaloo ku nekk bind ci sa page Facebook ana Charlie ñooñu ana ñu tey li ruslu ci àdduna bi mooy bu ñu reyee benn yéeféer àdduna bi yëpp jot bu ñu massacré bokkul islam ñëpp noppi ana waa Myanmar ñooñu am na leen doon jàpp di leen saaf di leen lekk ana ñu ana waa Afrique centrale anañu tey partout bi la Israël mu jël bombardé Gaza partout ci àdduna bi dañuy massacre jullit yi kenn du wax am na ñoo xam ne sax ci jullit yi ndeysaan ñoom xamuñu lu xew ci alamul islam yi xamuñu lu xew ci monde islam yi xamuñu lu xew ci seeni mbokki jullit gis ngeen xabaar boobu day siiwul Sénégal de cinquante jullit ñu fekk leen ci ñaari mosquée rey leen door leen ay kalashnikov di ko filmer Facebook direct ba ñu xam ne sax loolu jaaduwul ñu jóg di effacer vidéo yi su ngeen duggee Facebook bu ñu paree julli di ngeen fekk vidéo yu bëri effacé nañ ko France 24 buy jaar ci xabaar bi da koy cof fif lay def ndax nu mu ñaawee ndax nu mu salte fajal ay jullit yu bàyyi seeni soxna ñi bàyyi seeni borom kër ak ni mu seddee génn jëm ci seen borom ñi taal seeni oto ñi dox ak seeni tànk ñëw dugg ci jumaa di xaar julli jot waa ji toog di xaar ba imaam ñëw ba commencé xutba mu leer ko ne fi mu nekk ni xel yépp ñu ngi ci yàlla mu dugg rey leen waaye xamul tax yéeféer yi alku dof parce que ñoom dundu àdduna la ñu gëm dañu yaakaar ne àdduna bu fi nit dee deewee jeex na waaye xamuñu ne ndeysaan ñooñu la ñu am tey man de ñee naa leen man de ñee naa leen ñooñu moo tax ci suratu yaasin waa ji ba mu ñëwee di jàppale yonentee ñu rey ko lan la doon wax moom duggee àjjana qaala yaa layta qawmi ya'lamuuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin ñu bëri dañoo yaakaar ne jullit suñ ko reyee jeex na moo tax ñoom comme ndeysaan dañu jàpp ne àdduna dund àdduna kese la xamul ne ñii ñu rey tey ñii mu rey ñu nekk ci bisu àjjuma ci néegu kan lañ nekk néegu yàlla ci kan lañ taxaw ci kanamam yàlla kan la ñuy déglu ay kàddoom yàlla ñu rey leen fan lañ leen rey ci néegu yàlla mbokk yi shahid weesuwul loolu shahid weesuwul ñu rey la fekk yaa ngi toog ci sa kanam borom alquran moo ñuy wax ne bu leen yaakaar ñi ñu rey ci yoonu yàlla dañoo dee wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa inda rabbihim yurzaqun bu leen yaakaar ne ñi ñuy rey ci yoonu yàlla dañoo mént mukk bal ahyaa li fi nekk mooy dañoo dund ca seen boroom ñu ngi leen di wërsëgal waaye lan moo waral tey xeex lislaam ci biir ci biti ci monde islamique ci dulil bi fa ñu dëkk juddoo fa sax lañ fay xeex lislaam lu waral loolu tey lan moo waral ñuy xeex lislaam ci biir ak ci biti loolu jullit yëpp ñoo ko war a jàngat lu waral lii dëkk boobu tey ñu rey jullit yooyu gis nañ ne seeni njaboot kërum lëmm dañuy xëy dugg ci lislaam suba ñu dagg biir dem umra kërum lëmm da ngay gis société lëmm ñëpp tuub ay directeur général ay ministre ay député ay footballeur ay artiste loolu dañu mënatul dékku ci seen xol yi mënatuñ koo nangu société bi dafa dem ba lislaam bi ko bëgg a nangu ba ci France gii ñu doon wax islam mooy troisième religion tey su ñuy waxal dëgg dañu xam ne l'islam mooy paix mais ñemewuñ ko wax lu ñuy wax mooy un jour viendra jullit dina mën a dina mës a jiite France bu ngeen deful ndànk tey Europe ci boppam gis ngeen vidéo yaa ngi circulé am na làmbe bu taxaw nee na moom lu ko jommal mooy Angleterre ak yeneen dëkk yi ko wëri xale bu judd rek Muhammad lañ koy judd mu ne ay xale ngi di toog sama wet ëllëg ñoom ñëpp danañ leen convaincre ñu nekk ay jullit suñu amee ay doom tuddee leen Muhammad waaw lii moo tax tey mbañeel gi noone gi te li doy waar tey bu fekkoon ne ab jullit moo def loolu wala koo xam ne sax xamul lislaam wala islaam tur rek la ci am adduna bi yëpp tey kenn du dégg kenn du añ kenn du reer terrorisme gàngam rek benn waaye day sàcc dàll ci église ñu ne terroriste fekk ay daal la sax ci église noo tudd mu ne Aboubacar wala Isma wala wala Mohammad ñu ne terroriste la yu mu duggee ci jàkk yi dafa gisul ku mu église bi wala lu mu demee place sàngam dafa am ku mu rey moo tax mu sàcc daal kenn ci ñoom tey bu mu rey ay jullit bi ñuy massacré jullit yi tey comme ay weñ comme yow mu fekk ay ay weñ takk nga jël pompe pompe ñëpp dee noonu la ñuy def julli bi tey ci àdduna bi partout kaso yaa ngi fees dell ak ay borom xam-xam kaso yaa ngi fees dell ak ay jullit mbedd yi deret yaa ngi taa ndax ay jullit waa ndax jotul jullit yi xam seen bopp ndax jullit yi jotul ñu xam li leen wër lan moo leen peeg lan fan lañ leen jëme ndax jotul taxsabuhum ayqaaz wa hum ruquud waaye li doy waar mooy ni julliti Sénégal di nelawee noonu la ñeneen ñi nelawee mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala nanu xam ne lislaam ba ko yàlla tabaraka wa taala wàccee ci kaw suuf ba tey ña ngem woon di ko xeex ne du tasaaro ñooñu seeni sët ñu ngi fi ña ko ngemb woon xeex da ngeen di yaakaar ne abu jahlin dem na ñoom firawna dem nañu ñoom ñoom ñoom ñoom dem nañu bu ñooñu demee seeni sët ñu ngi fi seeni sët ñoo ngi fi jonkalu lislaam jongoru ko ne du fi dëkk du fi wax xilaafa du del siwaat kenn du gis jullit ñi nekk benn kenn du dégg jullit ñi bokk nañu benn kàddu tey looloo tax mbokk yi ñu jonguru lislaam di ko xeex guddeeg bëccëg ba ñu gisee jullit ñi ñoom ñëpp ñoom ci benn tariq mooy al awdat ila diinihim delluwaat ci seen diine wa tamassuk bi aqidatihim jàppaat ci seen pas-pas ba ñu gisee loolu jullit yi jóg di liggéeyal loolu ci la gaa yi ñàkk jàmm ci la seen xol yi mënatul nangu ñu gis jullit di wax allahu akbar wala muy wax asalaamu aleykum wala muy tudd baatu yàlla tabaraka wa taala di wax laa ilaha illa allah mënatuñ ko nangu moo tax gis nga fépp fu ñuy fexeel jullit yi da ngay dégg ñu yokk fa ay kàddu ñu ne ñooñu wax leen allahu akbar pour ñu wan ne ñaa jullit lañ waa ji bu mu doon tiire allahu akbar la dox tey ki doon tiire lu mu doon wax wax nañ leen laaj loolu waaye ki doon rey jullit di tey ñax lu mu doon wax ban kàddu lu mu wax tey bu doon kenn bu doon islam la ñëpp di nga dégg journaux Sénégal yi kenn du dégg kenn du añ tey di nga gis bi léegi ay jullit jóge fi ne dañuy dem participer yi dañuy dañuy naqarlu ci loolu noo ngi nii ñun sax yëguñu ko yëpp ci ñun yëguñu loolu xabaar boobu tey te adduna bi tey lii moo fi daw mooy ay jullit ñu rey fan la leen rey ci seen néegu boroom ñuy julli ajjuma kon war nañoo xam lan moo xew ba nu gisee julli ni jóg dellu ci seen boroom ne dañuy jàppaat ci seen téere boroom royaat seeni yonent keroog la xeex bi nag tàmbali ci biir ak ci biti ci biir islaam ak ci biti lislaam xeex bi ci biir la julli di ci seen bopp am na ñoo xam ne dañoo contre lislaam ndax seeni intérêt bëgguñu lislaam taxawaat waxuma la ak nag noon ya nga xam ne ñoom ci biti mbokk yi ci yàlla limaza al hujumu anil islam lu tax lu tax nit ñi xëy rek bañ lislaam bañ lislaam sampuwaat bañ nit ñi jaamu seen boroom bañ kàddu tawxid lu tax loolu ñun ñëpp ñoo ko war a jàngal ba ñu yëgee ne xilaafa daanu na gaawtu nañ rek joxe ay information ne lislaam li tax mu daanu mooy diine la boo xam ne ku ci bokk da ngay yaafus da ngay yambare ndax diine la boo xam ne du encouragé ci xam-xam diine la boo xam ne encouragé wul liggéey diine la boo xam ne toog rek di tàllal loxo la xam ngeen ne loolu du lislaam lislaam ku ko xam-xam ne diine liggéey la lislaam ku ko xam-xam ne du diine yaafus sallallahu alayhi wa sallam mës na romb benn waay waa jaa ngi ñëkk mu ne ko maa li araaka abuusa lu tax ma gis la nga ñëkk nii sa kanam gi lëndëm lu ko waral mu ne ko yaa rasulallah inni saa'im man dama woor yonent bi ne ko koor du mbugal koor du mbugal koor warul tere nit liggéey koor warul tere nit leer koor warul tere nit sangu koor warul tere nit sawar fan la ñun tey benn jigéen bu jóge Union soviétique dafa ñëw Sénégal di def formation mu dem université di jàng français am suñu benn xarit bu mu bokkal classe mu ne ko yéen daal dëgg-dëgg li ñuy wax ci lislaam dëgg la yéen seen dëkk bi yéen ñëpp da ngeen a yaafus waa ji ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko su ma jógee sama kër di ñëw fii damay romb garam place yi ñëpp ngeen ñëpp toog kenn du liggéey damiyee rek ak bolot ak PMI toog rek loolu xanaa seen diine bi la mu ne ko déedéet du suñu diine bi mu ne ko lan la mu ne ko dëkk ba nga jógee ñëw fii ndax dara amul ay jullit mu ne am na ay jullit kay mu ne noonu ñax bu ñu xëyee dañuy toog mu ne déedéet mu ne kon du islam loolu rek doy na kon du islam kon ci ñii la waaye du islam tey loolu moomu dal ñun ñëpp am na ci ñoo xam ne fii sax bu ñu jëloon seen doom di ko yóbbu daara day léegi ñuy jooy loo koy dugal alxuraan ah jàng alxuraan moo warul def dëkk bi léegi ana ñi doon jàng français ana ñi doon daw di xëy suñu jamono ñun da ngay xëy nga gis paa yi rang quatre heures du matin rang école di yóbbu seen doom rang rang quatre heures du matin ñenn ñi dañuy fanaan doon place ndax dugal seen doom école loolu tey ana mu ana njëriñ boobu fu mu nekk kon du loolu mbir mi pas-pas la aqiida la nit bu gëmee yàlla tabaraka wa taala lan lañ la wax la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil maarifa wa man arafa rabba wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin kenn du am pas-pas bu wér du nga am xel moo tax gis nga ñun suñu pas-pas mënta wér parce que xel yi ñoo ñorut ndax am na yoo xam ne ko am xel du ko nangu bàyyil yàlla bàyyil bàyyil nga ñëw jaamu ma man loolu ko am xel kenn du ko wax mu koy def borom xel yu set yi ñoom la alquran di waxal ku sa pas-pas wér da ngay fekk xelam wér ku sa pas-pas feebar da ngay fekk xel mi nekk wala al aql illa bil iman nit mënta am ngëm lu dul mu am xel. saa yoo gisee borom ngëm bu dëgër day fekk xel bi dafa set wala iman illa bil maarifa nit munta am iman ngëm yaa dugul mu am xam-xam moo tax alquran nekk téere xam-xam foo ko woo ci xam-xamu adduna wuyu la kenn du am xam-xam lu dul nga am quran wala al maarifa illa bil quran kenn du am xam-xam lu dul nga xam alquran soo amee xam alquran soo xamee alquran lan moo la ci fekk wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi ku xam alquran xam boroomam ku xam boroomam woo nit ñi jëme leen ci boroomam ana kan moo gën a rafet ci wax ci waajoo xam ne dafa woo nit ñi jëme leen ci yàlla ba pare ne man ci julli di laa bokk tey bokk na ci ñuy xeex islaam mooy assuyuiyuun wa asyaa'ihim wa furuuqihim ñooñu ñu woowee communiste yi nga xam ne dañoo ate ne yàlla amul bu fi kenn def diini ñooñu tey bokk na ci ñuy xeex lislaam ci biir activité ak seeni kuréel ak seeni cuut seeni doom ci tey tey li ruslu mooy da ngay gis jullit bu tudd Abdallah mbubboo diine fekk day xeex lislaam moo tax lislaam liñ ci bëgg a jàllale tey pour jullit yi bu ñu déggoo bu ñu nekk benn bu ñu ànd ci ñooñu lañ koy jàllale tey pour ngeen doon xam loolu dëgg la ndax jullit yi Sénégal génnoon ne benn bis dañuy dund sharia dañuy doxal sharia ci lislaam kon ngeen gis ay jullit ñoo ñëw taxaw seen kanam ne loolu mënu fay nekk léegi léegi benn mbokk mu mooy wax benn ko jóg benn waaye naan am na ñoo xam ne ab duka rek ab duka moom laa leen yéene ab duka nee na tur bu mu leen di tuddee abdula sant bu mu leen di santal kala ab duka waaye day firi lan mooy ab duka nee na ñooñu man yéene ma leen lu ñu jàpp leen rek tëral leen ci kanamu jàkka ji imaam ne allahuma innahu ab duka loolu mooy lan loolu ñu jàngarab ñoo ko xam suñu jàppee julli tëral ko ci kanamu jàkk imaam ne sàppe leen kàbbar yi ñeenti kàbbar la jàng faatiha def salaatu ala nabi ñaan bu muy ñaan après ku muy ñaanal néew bi lu muy wax allahumma innahu abduka kon waajooju nee na man ku ma jàpp rek ñu jox ma paaka ma def la abduka te waajooju nee na jullit la kan lay rey nee na jullit allahu akbar wax wax turu ñooñu mu ne ñooñu ku ma si jàpp sama sañ-sañ ak yow rek mooy ma def la abduka xoolal jullit mooy yéene rey mbokk jullitam kon ku dul jullit bu jàppee jullit du mu koy def bu leen fàtte événement Sénégal ak Mauritanie du ma ko fàtte mukk ndeysaan benn waaye moom ma doon nettali mu ne dañoo jàpp benn naar di ko rey fekk ci Sénégal fee ci benn gox mu ne ñuy rey naar bi muy wax laa ilaha illa allah benn waaye naan ko reyal naar la mu naan laa ilaha illa allah waaye ñu naan dóoral naar la laa ilaha illa allah xoolatul couleur laa ilaha illa allah xoolatul làkk laa ilaha illallah xoolatul at laa ilaha illallah xoolatul jëm laa tuaadi man yaxruju faahu bi laa ilaha illallah su nit waxee laa ilaha illallah jeex na saxaaba yi dañ doon xeex ak yéeféer yi ba jàkkaarloo jaasi war a dal bopp war a dagg yéeféer bi tiit sànni jaasi yi ne laa ilaha illallah jullit bi xëcc ko taf ko ci dund bi ne lii rek moom a boole woon ak yow nit kese moo nekkoon suñu diggante wax nga ko jéem ñun naka ngay jàppe nit muy wax laa ilaha illa allah nga naan nangam la séeréer la wala tukulóor la wala nangam la gëmul laa ilaha illa allah ko sa gémmiñ di génne war kenn waratulaa noonu soppe nga war a nekk mbokk nga war a nekk lu ñuy jàng du mooy innamal muminuuna ixwa waaye problème bi yëpp olof yi dañ ko wax mu jeex olof yi dañoo wax ne bukki bu yabee ponkal ca dëkkan bala li tax te yéeféer yi ñemeñu ragalan saaba yi ñemeñu tay mooy nun la alxuraan moo wax ne benn julli démb ñaari yéeféer la doon xeexal benn ñaar la doon xeexal tey benn yéeféer mooy xeex ak iqlim wala saab benn yéeféer mooy jàpp jullit yëpp duma kon mbir mi nun la noo war a xoolaat suñu bopp noo la war a xoolaat ndax yoon wi ñu jaar foofu la ñoo la war a xoolaat suñu pas-pas yii ñuy wax pas-pas yu wér est-ce que wér na aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكنا تي خيت ني خيت الاسلام تاي موي اليهود واذنابهم يهودي ak seeni mbokk ñooñu moom xam ngeen ne yàlla def na déclaration bu yàgg ci ñoom wax ñu ne ba asamaan di wàcc jant bi fay yahud du mës a bëgg jullit wala tajidanna asadda naasi adawatan lillazina amanu man al yahud loolu alquran moo ko moo tax jullit yi bokk na tey seen alkane mooy ñàkk gëm alquran muy seen téere suñ ko jàngoon gëm ko xam ko dégg alquran li muy wax ak li muy woote kon danañ xam ñan ñooy seeni mbokk ñan ñooy seeni noonu ñan lañ war a aliyeel ñan lañ war a bàyyi wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad loolu ñaata aaya la ci alquran ñaata lañ yàlla ne jullit jullit mooy mbokkam sooy aliyee sooy far ab jullit waaye tey sunu problème mooy nun boo gisee yéeféer yi ñemeñu ba ñemeñee def yenn yi mooy nun la ñooy problème bi nun yahudi gis ngeen tey seet mbir nuñ koy doxalee xoolee nu ñu tàqalee jullit yi xoolee ni ñu leen noonalee ni ñu leen dëddulee tey boo woon jullit nga woo ab yahud jullit woo yahud jullit woo jullit jullit ba ca yahud ba lay def lu ko waral ndax seeni pexe ak noonu ñu ñu jaarale ñetteel bi mooy Amérique wa umaraa'uhaa ak ñi muy allié tey ci àdduna bi tey américains yi bu ñu buggee bombarder benn dëkk jullit ci jullit yi la ñuy jaar wala Irak yàqu na terminé wala Yaman tey wala Syrie dëkk yoo xam ne ay àjjana la woon ci kaw suuf tey boo fa demee munoo misaal tey dëkk yooyu lu ñu mel li ñu yàq ci islam kenn mënatu ko defar li ñuy rey ci ay jullit ci àdduna bi kenn mënatu ko defar loolu yëpp lu ko waral mooy ñun sunu ñàkk ànd sunu ñàkk a nekk benn sunu ñàkk a déggoo premier ministre bu Allemagne day wax ne Chine Chine mu ne am nañu nangami yàlla Chine daf ko tudd nombre bi daf ko wax nangamu yàlla am nañ ko waaye xam nga lu doy wax mooy ñoom ñëpp ñu ngi nekk benn pour seen dëkk dem ñun jullit yi ñaata yàlla lañu tontu bi mooy benn ñaata yonent lañu am tontu bi mooy benn ñaata téere lañu am tontu bi mooy benn ñaata xibla lañu am tontu bi mooy benn waaw lu tax ko mënuñoo ànd mënuñoo déggoo te ñee li ñu yor ci ay yàlla kenn xamul nu mu toll wala nu bokk benn borom bokk benn xibla bokk benn diini bokk benn yonent bokk benn téere waaye mënunoo déggoo ndeysaan benn vidéo bu ma benn waaye envoyé benn jàkk cheikh bi dafa julli sëlmal benn waaye ci biir sàppe raam ñëw jege ko ne ko yaa cheikh mata nuqaatilul yahud mu ne ko isa daxalu fi islam yaa cheikh naa imam kañ la ñuy xeex ak yahud yi mu ne ko bu ñu tuubee nekk ay julli rek ñu xeex ak ñoom loolu lu muy loolu wax juréy la loolu wax juréy la kañ la ñuy xeex ak yahud yi mu ne bu ñu tuubee nekk ay julli ñu xeex ak ñoom dëgg la tey julli day bàyyi yéeféer yi ñaata yoon ay xale yu ngeen gisoon ñu jógee Sénégal naan dañuy jihaad fan lañ dem ñooñu jàppoon Sénégal ñooñu ay terroriste lañ dañuy xeex fu ñu dem Libye Libye ñan ñoo fa nekk ay jullit fan lañ dem Syrie ñu fa nekk ay jullit lu tax dem yóbbu Israël moo tax damay wax ne ñi naan dañuy jihaad Israël a ngi nii ñaataat ñun ñëpp ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi fekk Israël di rey suñuy bokk Israël nangu masjidul Aqsa parce que démb jigéen ñi lañ doon toroxal parce que démb ngeen duggee léegi ngeen dugg internet jàpp jigéen ñi di leen toroxal ci biir masjid ci biir jàkka ji ci biir jigéen ñi jullit yi di muri di door di wéq vidéo yi doo ko mën a seetaan da ngay puus rek muy dem lan lañ toll ci loolu mbokk yi dañu yëg ne l'islam ci biir ak ci biti ci xeex la nekk rey guddi ak bëccëg jullit ñi ñu ngi leen di torturer di lakk dëkk yi nga xam ne jullit ñoo fa ëpp doole comme Sénégal dañ leen di nelawloo seen yoon ci l'islam yëguñu lu xew fi nga xam ne jullit ñi dañoo néew moom comme dëkk bii tey nga xam ne dañoo rey dañoo xëy rey cinquante personnes li ci blessé kenn xamul nu toll ay quarante et quelques ñoo blessé xam nga ne ku yor kalachnikov dugg ci biir jumaa di rey pare taxaw ci biti ñi bëgg rëcc sax dugg ci seeni oto nga fekk leen ci oto yi rey leen ba pare def ko direct rey jumaa ji ba doyal génn dem benn jumaa loolu ci àdduna bi tey na patt pataaral kenn du wax lu tax mooy julli di seen ñàkk ànd seen ñàkk nekk benn moo tax nit ñi yab leen moo tax ñëpp luñ jóg xëpp ko seen kaw loolu moo ko waral tey ji bu ñu xamoon ne jullit yi ku leen laal adduna bi yëpp jot fu jullit nekk ci kaw suuf tey bu ñu julee jumaa pare yëpp jot kon kenn du ko def waaye bu ñu xamee ne boo ree ay jullit moo nga fekk ay weñ nga pomp leen ñu dee yow ñëpp moo yem comme nga fekk ay ginaar ci tali nga raser leen ñoom moom moo yem benn la looloo tax lu leen neex ñu def mbokki jullit yi bu ñu yàlla sàmmee ba ñu julli ba pare comme nuñ ko baaxoo def am nañ fi suñuy mbokk jullit yu tabat ñenn ñi yor ay ordonnance ñenn ñi yor ay analyse am nañ fi suñu benn daara aussi boo xamante ne mbokk yooyu ñu ngi sàkk ku leen dimbali ci ay basan yu xale yi toog ak yeneen ak yeneen am nañ fi ay mbokk jullit yoo xamante ne mbirum location la ñuy jooy mbir yu baree bare yoo xamante ne moo dal ci kaw jullit yi ñu ñëw wax ñu ko pour ñu wax leen ko ngeen jàppale leen bu ñu paree julli mbokk yi ku fi mun a bàyyi ngir mbokk yooyu dara incha allah yal na ko yàlla def fi misaani xasanaati yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim allahuma ya haadi ihdina siraata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين